merci monsieur Camara pour cette subtilité et cette euh, intelligence cest à ñii dañuy wane ne seen parti bi amul benn démocratie moo tax boo buggee lu baax doo fa toog amul démocratie c'est-à-dire kenn moo nekk ci parti bi di buum di buum yi il fait et défait yaa ngi dégg mooy def lu ko neex mooy briser carrière mooy joxe envol carrière waxuma la sur le plan administratif parce que il faut faire la part des choses entre Macky Sall le président de la République qui nomme aux et Macky Sall président de l'APR. chef de parti chef de maanaam président de la coalition Benno Bokk Yaakaar c'est-à-dire c'est lui qui fait et défait boo gisee ñii gis nga à jusqu'à l'heure où nous ñoom ñu nekk fii kii naan Ablaye Daouda Diallo kii naan Amadou Ba kii naan nangam ak nangam maanaam ñoom bu ñu tëddee sax duñu nelaw xam nga loolu mooy wan ne ne Macky Sall daf leen daf leen daf leen daf leen fitnaal maanaam nekkuñu ci jàmm. suspense bi kay saa yi fi mu toll moom mais parce que parce que non mais parce que c'est un faux suspense. parce que ñëpp a ngi koy dund. Euh, ñëpp a ngi koy dund ñoo ko jox monsieur monsieur Camara Macky Sall. Euh, mhm. euh, veut utiliser son parti et sa coalition pour endormir les Sénégalais. parce que les priorités sont ailleurs gis nga tànn candidat Benno Bokk Yaakaar wala APR ah, mais jarul actualité seen biir la nañu tànn ku leen neex wala neexee ñu tànn Abdou Mbow. Mhm. mais tànn gi ñuy tànn candidat taxul sénégalais yi voté leen. waaw ah waaw loolu tamit leer na. ce sont le président de la république. Mhm. c'est-à-dire ñoom daf dañoo dese xam loolu. ñoom ñi ngi nekk fii di perdre ay temps di mhm. perdre ay temps naan ay ay candidat bi le candidat naturel celui qui gagne celui qui perd nangam ak nangam tànn candidat taxul ñoom ñu dem sax deuxième tour il faut qu'il la ñu xam ko ñoom waa Benno il faut ñu xam ne tànn candidat Macky Sall tànnal leen candidat. mais loolu dafa leer parce que Sénégal yi ñooy sax ñu dem deuxième tour. Sénégal c'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire. a a maîtriser. bàyyi ko mu daane euh, l'appareil électoral. maamu leen may ko la dama la ne tànn dans la manipulation politicienne Euh, à outrance qui nous a servi. benn bokk yaakaar vous le pensez vous le pensez pour les Sénégalais dañu